bokki jullit yi bokki taalibe yi saa yu ngeen jàkkaarloo ak jëmm ju tedd ji xel yépp ak nopp yépp ak xol yi war nañoo mën a àndandaat di déglu ak a taatan kàddu yuy bàyyikoo ci sëriñ Touba Cheikh si El Mokhtar ndax moo waxoon ne lu may wax lu moom laa koy waxloo lu may def lu moom laa koy defloo lu may dox lu moom laa koy doxloo kon moom amul kàddug boppam kàddug sëriñ bi rek lay yëkkati saa yuñ ko séenee mu toog am na ndigal lu bàyyi ko ci sëñ Touba Cheikh Sidil Muxtaar jëm ci murit yi te murit amul lenn lu ko gën a ñor ci ab sëriñam lu weesu ndigalam kon ñun ñëpp ñu maase waat déglu kàddu yi ndigal yi bàyyi ko ci sëñ Touba Cheikh Sidil Muxtaar jaaral ci Cheikh Mahamadul Bachir bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi amin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ixwat al iman wal irada wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp di dellu siwaat fii di leen jot li kàddu yu ndigal ak i fàttaliku yu bàyyikoo ci Serigne Touba ak Cheikh yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér muy luy mottali rek waxtaan yu ñu fi doon def barki démb ci ndigalam ndax ci tabaski gi dafa joxe woon ndigal ñaari ndigal benn bi mooy li ñu waroon a génn ci mbedd yi bi ci des mooy ndigal li joxoon Baay Faal yi ngir ñu setal dëkk bi loolu itam nit ñi jëfe nañ ko jëfin ba mu gën a rafete ndax xam nañ ne ndigal moom ci ci la njariñ nekk ndax sëriñ bi lépp loo xam ne mi ngi koy digle wala mu di ko tere lépp njariñ la ci ñi rek lay tabbi ndax ndigal moom dafa am solo ndax ku ne xam na ci histoire ne Iblis bokk na ci ñi gënoon a jege suñu borom waaye ba mu gàntoon digal rek suñu borom da ko sippi fex bi mu ne maa yokkoon dake ant take mara kon Sëriñ Tuubaa daan wax ne bopp ba nar baax sax noppee day dégg ndigal daana wax itam ne ku la mënta digal nga def mënu laa tere mënta dox sa digal mënu laa jëriñ mënta dox sa digal ak sa kon suñu diggee Serigne Touba nañu xam ne lenn rekk fi dox mooy jëfi ndigal ak bàyyi tere kon Serigne bi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu itam ndigal li ni ngeen ko jëfee te xam ne lépp ak defar la ndax Touba day dëkku Serigne Touba muy dëkkoon bu mu dëkk bu mu fonkoon. ku ko mas sa xam ku ne xam na ne ku mas a bàyyi ko Tuubaa fekk ko njariñ balaa wax ak kenn danaan nañ ma may ma wax ak ka bàyyi ko ci sama dëkk bu tëdd kon képp ku fi dëkk rek war xam ne am na luñ la fàggul war ngaa xam ne am nga tawfeex sëriñ Soxna bu daan na nett ne am na ku ma sëñëw ci moom fekk sëriñ bi di waxtaan sëriñ bi dagg wax dana ko ñëw nii mu bàyyi ko ci sama dëkk bu tedd ba ne ko ana sama dëkk bu tedd ba nu mu def koo koy def desee xam wax yi ne ko ah Mbàkke dëkk ba fa ñàkk ndox mu ne ko loolu de desee biir bu gàtt dana jeex mu ne ko ah Mbàkke teg ci biir bu gàtt daal di faatu kon Tuubaa Sëriñ Tuubaa da koo fonkoon mu ñoroon ko mu ñaan ci suñu borom taarix yi xasida mën na nga xam ne bëgg na ko ci dëkk bi mu ñaan mboolem li nga xam ne bañ na ko fi ci dëkk bi mu ñaan ko suñu borom mu ko ci te lépp it suñu borom nangu ko comme lépp lu fi nit di jëf dafa fekk muy bëggu Sëriñ Tuubaa bu ñaan suñu borom ba suñu borom nangu ko borom wajibu lahal xayra min al jihaati as sitti wa fiha an al afati loolu waral lépp lu fi waaye jaay mu yomb ci yow moo tax loo fi sàkk mu yomb ci yow wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib shurbaha wa akalaha moo tax Tuuba gis fi nit ku diñe yomb fi te xam nga ne bari liggéeyukaay bari fi mu ñaan fi lu bare bare mboolem li nga xam ne bëggoon na ko suñu doom defal ko kon loolu nag ku nekk ci biir xéewal la war nga koy fàttali bu baax a baax te xam ne la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ne liggéeyu Serigne Touba bi bari gi mu bari gi suñu bër ba fees dell suñu bër bu mu ñu nax ba kenn ku ne yaakaar ne liggéeyu suñu tool Cheikh ko kenn te doon ci réew ndax fa mu taxawoo di ñaan ku taxaw ci ginnaaw naan ay nit sa amatul kon dañ xam ne dëkk bi dëkku Sëriñ Tuuba moo tax itam njabootam gépp tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ku fi mas nekk ku nekk la njëkkee nekk si mooy dëkk Tuubaa ak njabootu Sëriñ Tuubaa di ko dëkkee moo tax ndigal yi bi joxoon bu ci seetal dëkk bi da ko doon ne rek ci la kilifaam yu baax daa def Cheikh Mouhamadou Fadil fàttali naa ko keroog may wax wax ni dafa joxoon ndigal doomam sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ne wolof yi da lay wax ne xoddiku ca ba nga lekk la ne ko fii nag Serigne Touba fàggu na ko ba loolu du fi am waaye nag doomu suñu borom du ko digal muy sabab ba nekkoon nag li nga def tàmbalee bi sama biir kër gi Serigne Cheikh def ko liggéey mu rafet bayiwul kenn bayiwul fenn ba loolaa waral dëkk yi mel ni mu mel tey moo taxoon ñu tànn ko mu bokk ci dëkk yi gën a rafet ci àdduna ci wàllu architecture loolee nag. mu mat lu mat a bàyyi xel la lu mat a sàmm la moo tax Cheikh Abdoul Ahad ci jamonoom bi mu ñëwee xam ngeen ca yooyu jamono fa marché Ocass tolloon ci koom-koom ak ci doole mu xëy wax leen ne dama toj marché bi boo jaaxaloon na nit ñi waaye foofu day dellu rek ci maanaam sax min ayatin aw musiha naati bi xayri minha aw misliha lu fa lu fa suñ borom wursal day gën dafa demoon ndax mbirum sëñ bi moo moo mel noonu fustu ayyaami asdarat muusi wa fustu qultu ayyaami asdarat muusi wa fustu bil xaamuusi fil xaamuusi Sëriñ Tuubaa tayam gi la mooy géccal démb Cheikh Abdoul Ahad ci defaram ba nga xamee ni ñu ngi koy def am na yaari fi mu waxoon dafa waxoon ne bi muy setal dëkk bi ndax loolu Sëriñ Tuubaa ko loolu santoon dafa am mbirum baatin mu xóot mu ne ci biir loo xam ne du lu ñu mën a wax ci rajo waaye ñi ko jege xamu nañu lu bàyyi ko ci Sëriñ Tuubaa la ne nag sama bakkan na mu àgg foofu daal di wax itam ne euh, nag bëgg naa ne ca ca ca ba nee na mbott yu ñax yu leen tëriwu ko àgg na mu ko digg woon def na ko noonu bi nga xamee ni itam mi ngi toj marché bi nit ñi di ñëw mu wax leen maa leen di pire maa leen fuuf ci nit ñi de ndax looloo fi bàyyi waaye damaa mel ne ki fekk ak njabootam ñu toggul laax ba di ko bëgg añ moo moo wutal leen aw nag wutal leen am ndugg wutal leen diw ak la muy àndal bu noppee rek bu toog gi noppee danañ xam ne lii ma leen di fàggul moo gën lañ nekkoon ak lañ waajaloon seen bopp noonu rek la demee kon fii mu àgg si tey bu ko Cheikh Abdoulaye tojutoon ñu marché bi lay tey kenn kenn du xam fa mu jëm sëriñ Saliou Mbacke itam ba mu ko fi tàmbalee da ko waxoon neewoon ne lii ma leen sant bu ngeen ko def itam jamono dara ñëw def ko loolu kon seeni junj la Cheikh Sidi Mokhtar itam bu xëyee te kenn wax ko mu waxal ma boppam ne maa fi rombul sama bopp gis ko mu ñor ko mu itteel ko kon loolu xam naa lu bàyyi ko ci Serigne Touba kon loolu na xam ne Serigne bi kenn ëpp ko yërmaande ci nit ndax boo doon xool dëkk bi kat li muy yaatu yaatu boo fi boo gisee génn moom genn ko te génn kër këram boo xam ne mën na ko ko te moom lu mu am rek def na ko ci liggéey Serigne Touba génn këram boo xam ne mën naa jël ñaar fu million amul yëpp def na ko addee Sëriñ Tuubaa wala mu def ko addee Sëriñ Baara kon kooku bokk ñu ko ci biir nga xamee ne digle na ko euh, joxoon na ma ndigal itam ne mboolem ñi nga xam ne nekkoon nañ ci barab yu ñu tuxale ci barab yooyu nañ fexe ba dimbali leen fexe ba wutal leen feneen fu ñu mën a nekk ndax nit itam xam na ni ñi fi ñëw ñëpp la Sëriñ Tuubaa waxoon rek ku fi sam xel indi sam xel danga teel ba moo ko waxee itam wax naa ci nguur gi ba incha allah bu àndee dogalu suñu borom am na yéene tabax fi lu ma ñetti marché ak àggale benn marché bi mu ci tàmbaloon bu ko defee ñi nga xam ne yëkkatee woon nañ ci barab yooyu jox na jox na ndigal sous-préfet képp ku ci amoon ku ne mu recensé leen mu tegu ci yoon bu ko defee bu marché yooyu noppee. ñi ñu jëlee woon ca barab yooyu doon ñi ci jëkk ci ñu jox leen bu desee nag ñu séddal bi yéen taalibe Sëriñ Tuubaa ba am nañ ci yaakaar ci ne incha allah dana sotti ñu ko bëggee kon loolu ñu xam ne euh, sëriñ bi yërmaande ci nit ñi foofu la toll ndax ndigal moom bu xasee bu jub amu ci kenn koo xam ne dañuy wax ne dañuy dañ dañ koy dañ koy jëfe ci ci bàyyi kii ndax loolu du mën a doxal mbir ndax loi suñ borom li de li liggéey ci alxuraan digal ko ñëpp di càmmaase kenn du ci génn loi adduna lii itam saa suñ bëggee mu dox dañ koy maasale ci ñëpp waaye bu loi bi dalee ci kaw kii bàyyi kale boobaa euh, li ñuy wax saafara su jur jàng moo tax lii itam amu ci kenn koo xam ne tegg na li sax ndax sëriñ bi ci wax dafa wax ne nañ tàmbalee ci sama këri bopp lépp loo xam ne xool nañ ko ba gis ne doonut lu ci war nekk nañ ko dindi. njabootu Sëriñ Tuubaa gépp itam yaakaar naa ku ci ne boo demee ci këram gis nga la ne newoon xaarum sëñ bi di yónnee ci ñoom waaye xam nga xam ne ndigal sëñ bi kenn ku ci ne da nga ko nangul sóobu ba ci jàkk yi ñuy wax naan toj nañ jàkka wax Abdoulaye Ka laaj mu ne ma kat jàkk ja ci mbedd la nekkoon waaye seen borom pour ñoo wax ne nañ ko def ndax comme ñoom ci mbir te suñ joxe na liggéey lu lu newoon ci mbir mi ñu ko dindi ndax loolu itam nit ñi dañuy jaxase ay mbir loolu na ci àdduna ndax rasulullahi ma saa wax xam nga di mm-hmm. ñi dañuy jaxase lu bokkut waaye wa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan néew yàlla ñëpp xam màgg gi ñëpp xam sell gi waaye nag nañ xam ne luwaa moom bu xasee agsi ci kaw ay nit ñépp la war a dal seen kaw wala bu dul loolu du am njëriñ ndax nit ñi moom njabootu sëriñ bi képp fi na te responsabilité am ku ko jox danga ko war a xam xam li mu doon ndax rasulullahi dafa wax ne maam min amiri ashir ku jiite bu doon fukki nit la ëllëgee ca sa kanam borom daanañ la fa teewal njooñ say loxo ci ginnaaw laaj la na nga doon doxale sa digg ñoom nee nag bii sukkurin ni xataa xataa eh, yafukkuhu al adlu aw yubiq aw yubiqahu li jawr bu fekkee dangaa doxaloon ak maanu ci ñoom yu dindi ko bu fekkente nag woon ak maanu ci ñoom noonu ñu ñëwoon sa loxo yi ñu leen lay tàbbale kon jiite aw nit dafa dis ndax nit ñi jaame suñu borom la te suñu borom da yërëm te wax na ne képp ku leen yërëm ku ne dinaa di yërëm kon su nekk ci kanam nit ñi da nga xam loolu waaye nag dafa am lu alxuraan santaan dafa wax ne yaa ayyuhal lazina amanu kunu qawwaamina bil qisti shuhadaa lillaahi walaw alaa anfusikum nee na na ngeen maandu tey doxal dëgg doonte daa dal seen kaw walaw alaa anfusikum bu dalee bu dalee ci seen wayjur tam na ngeen ko nangu bu dalee ci seen jegeñaale na ngeen ko nangu in yakun ganiyan aw faqiran bu fekkente ne luwaa bi ñuy indi itam dafa dal ci koo xam ne ku am xaalis la na xam daa war dal ci kaw aw faqiran bu fekkee dafa dal ci ku ñàkk itam na xam ne dafa war dal ci kaw fala tattabi'ul hawa ñaan bu leen topp ngeen maalu ndax maalukat huwa aqrabu lit moo gën a jege ak ragal yàlla kon loolu tam na ko ñépp xam ndax bari na ñuy wax naan bàyyi nañ kii yeeg dañoo protéger kii yeeg waaye nañ xam ne ba ma ko xasee yëkkati ne sëriñ bi neena na sëriñ bi nee na nañ def nangam boobu laa ci nopp ñañ ko sant nag muy Abdou Lahad Ka ñi nga xam ne moo ci dëkk ak ñam ko àndal yaakaar naa ña ngi def seen liggéey ñi fi ñëw ci man ñëpp wax ci wax si ma ko dama naa leen nañ dem ci ñoom ñi nga xam ne ñoom la ko si ñu taxawaloo waaye amu ci kenn ko xam ne génne naa la ci man sama wetu ndax loolu tam dafa war a leer ndax nit ñi. dañuy wax loo xam ne li ñuy wax te loolu suñu suñu suñu ma kon ñu sant ñëpp ba ci ñi ci mujj mooy ñi dëkk ci marché Ocass te ñu ñëwoon na fi ñii nii toog ci salle fi dikkee waxoon nañ ko maa ngi leen di boole ak suñu Cheikh Bara mi nga xam ne moom la sëñ bi doxalee seen digg waaye ñëpp daal lañ xam ne li sëñ bi diggee moom ñëpp ñëpp la ko digal bàyyiwu ci kenn yërmande ji itam boo mu dana wàcc ci kaw ñëpp lu mu ci mën nag dana ko def ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. li nga xam ne mooy biir màggal tubaab yi ndax liggéey bii sëriñ bi def defuñ ko ngir wàcc ngir waajal màggal gese dañ koy def ngir defar dëkk bi biir màggal gi ci boppam nag yërmaane mënu cee ñàkk ndax nit ñi dañ fee ñëw eh, di di am yaakaar ci dëkk bi. am ci ñoo xam ne itam la ëpp ci la ñuy yore seenu njaboot ci àdduna fa lañ ko daal fa ko daa eh, lijjantee ci biir màggal bi loola kenn xañu leen ko joxoon naa ci ndigal Abdou Lahad Ka mi nga xam ne moo jiite maire bi na mu koy defee nag moom moo koy xam ndax eh, sëriñ bi lu ci ne da ko teg ci ay loxo loxo yi nga xam ne moo yor loolu rek mooy maire Touba ñoom ñooy saytu mm, ñi nga xam ne ñoo ñoo ñooy def loolu nañ ko war a defeek yan fan lañ koy def ak fan lañ cee may ak loolu moom ñoo xam nañ koy defee ndax euh, Serigne Saliou dafa am lu mu mas wax ñu ne ci commune rurale bi ca yooyu jamono da leen mosoon wax ne leen li tax ma teg leen fi ne bu fekkente ne bala ngeen def dara ñëw ci man luñ leen luñ leen nar a waxee ñëw ci man kon daanaka dana mujj mel ne maa fay ne kon booba daanaka ma teg ma teg leen fi amatuñ njëriñ kon day mel man sama jëm bopp mën naa nekk ci maire loolu itam kon mooy lii itam nay xam ne sëriñ bi dafay teg commune bi ngir nit ñi ndax soxla yi nit ñi ak it yi dëkk bi mooy dafa bàyyi kon ñoom itam lépp loo xam ne gisati nañ ko muy loo xam ne lu ñu lu ñu leen war a wax nañ dem ba ci ñoo wax leen ko bu saafarawul nag ñu door a ñëw ci ñun waaye nañ xam loo tax sëñ bi teg leen